karena Ninja,花火の来、お買いのとは。Ya, mana ya, ya kam tidak lagi nak kusal. Mandi dua menasi halai teh. Di motor dun am nyani yai at nyani baik. clock maga, clock maga, Glock. for my girl, I'm popping in the street, baby. Hate ball black, I ain't struggle so hard. No, I got my cost money. Do them body like I want it, like you or something. Baby, look at me, no, see his sister good. Dude. Try to throw it high, man, I follow with my socks. Next minute, I ain't sure with another man. Oh, she holding big can't I money. No money, no baby, no guy, no lady. Nice waaw waaw asalaamaaleykum suñu mbokk yi ànd yéen a ngi sant fii ci Gambia radio and television services gannaaw bu ñu sante yàlla di julli ci sanga-sanga yi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye sas naka dañoo sant suñuy ñaari waajur di sant suñu wasila Seydi Ababacar si yal nañu yàlla taas ci barkeem yokka leeram waaye suñ fa jógee sas naka dañoo bëggee ki nga xam ne wa his excellence di président bi di Cheikh professeur docteur Alhaji Yaya AJJ Jammeh kooku sas naka dañ koy ñaanal moom jabotam ak képp koo xam ne yaa ngi topp ci gannaaw fan nga bu daa wér gu yaram bu mën a yóbboo rek ci réew bi ci kaw ca kanam waaye bu ñu fa jógee dinañ ñaanal ñi nga xam ne ñoo tëre ci lopitaan bi yàlla may leen wér bañ delluwaat seen i njaboot waaye ñi nga xam ne ñooñu féete foofu ca bat sax ñu ñaan ki nga xam ne mooy buur bi mu wàccee li nga xam ne mooy xoli yërmande seen ko suuf seddeen lañ fañ tëdd waaye ñun itam ñu ñaan ki nga xam ne mooy buur bi mu mel ñu wér ak kattan goo xam ne sas nekk suñ fi toogee dinañ bëggee képp koo xam ne yaa ngi seetaan Gambia radio and television service réewi Gambia sas nekk dama am mbégte ak kontaan su ma fi toogee bétta na sas nekk dama leen di wax ne soo leen gisee make bi dal gis loxo bi rek ngeen xam 7784488 soo ko koolee rek di nga am ki nga xam ne ni mooy Yeysa Jawara Sama waaye tamit saa su ni ma ko def faral di waxee rek dañoo dal def ba mbaax ba tax na yéen ñi si tànn da di la maam Dieng waaye ndigam nag benn tey rek ni ma ko waxee woon dañoo dal di rek ngeen dal def rek ba mbaax ñu leen ko seetaan bàyyi ba léegi nga may woon kanam bu leer sama fàtte woon comme suñu mbokk yi ni ma leen ko waxee wax naa leen tey dañoo toog añ dal di def am li nga xam ne mooy njoganaal a ci xam na pare naa dal di def nag njoganaal bu am solo mu ne lan laa toog a tey mu ne panket boo xam ne dafa am am waaye nag ne añ bu a mhm. waaw ma amal leen sipa sipa waaw lii la waaw dafa am kari waaw poobar mhm. ba pare liñoŋ baa nekka nii ak kaani bi laaj jabu jàmbo poobar bi ma tooga soos boo xam ni kaani eh, pacal pacal bi la ak ak ah, ketchup. ketchup moom laa leen a defar. ànda ah, mustard um, bi. waaw man laa si tuuti si dama ko si dama season waaw dama season sipa sipa bi ba pare doo ko defar. doo ko di moom xam naa ne moom benn ba ci mu lekk rek mu doy. doy na dégg ngeen ko nag bi mooy njoganal bi wax naa bu añee ba suuru war a teg nag dañoo njoganal ñu bàyyi awan naan lu sedda awan ñu jublu nag ci njoganal bi. suñ mbokk yi ni ma leen ko waxee woon gis ngeen ni tey nag Awa Cham dal na toogal yi nga xam ne mooy fundi bi gis ngeen ko suñ paree rek ñu dal di ñëw rek pour euh, dal di añ dal di toore rek jublu si am joganal bi am awa gis nañ ne fundi bi moom li war a dem yëpp def nga ko waaw fi mu nekk nañ si kaaña bi ba mu ratax ko ba mu ñor mm-hmm. fi mu nekk na xom léegi nañu yekke rek mm-hmm. taajal leen ngeen lekka mm-hmm. meen nag Awa Cham tey dal dina togg añam bi njoganaal bi tamit pare na yëpp rek um, wax naa leen waaye ni ñoo def maa awat nañ nekk ci studio bi képp koo xam ne ci programme bi rek nga koo ci 4373905 00220 4373910 awa dama daal bi nag moom fan ngeen ko njaboot waaw <laughs> solo ngeen gis tey li nga xam ne ni moom la ñu Awa Caam toogaloon Awa Caam na daldi ñu toogal li nga xam ne ni mooy lan dama daa la dama daa yàpp